Euh, feggoo ak sëriñ Afia bu al imam mi nga xam ne moo jiite mbooloo mii fi féete di daayira muxaddamatul xidma bi nekk ci jumaay Touba di saytu jumaa ji suñu jataayu tey bii nag ñu seq ko ak ay kilifa yoo xam ne dañoo teew ci barab bi ngir teewaay yi ñu fi daan teew rek ci tàmbalee ko ci ngasum raay bi ba ni jumaa ji di sottee ne coleet ngir mu yitte joo xamante ni jumaa ji def ko soxla te ni ñu ko xamee jumaa ji du lenn kenn lépp ñëpp ndax lu ne ku ne ngi ci looloo tax daayira Muxaddamatul Xidma bu yitte jiw mel nii amee day jokkoo ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo bokk pas-pas bokk yéene ci liggéey bi ngir ñu yaatal ko ci ñoom ngir jitt yitte jooja mën faju ne yitte ju ta sëriñ bi ak taalibe yi sax amul waaye nag dana am ak jagle goo xam ne xëy na sëriñ bi ñoo ne la koy jagleel loolu moo waral suñu jotaayu tey bii ñu feggoo ak euh, kilifa yi nga xam ne ñooy kilifay daayira Muxaddamatul Xidma ginnaaw sëriñ Afia Bousso al imam sëriñ Abdul Ahad Bousso Muxtaar mi nga xam ne secrétaire général la ci daari Muxaddamatul Xidma mi ngi toog feggoo ak sëriñ Abdul Ahad Bousso maam Asta mi nga xam ne moo jiite euh, commission sociale ak euh, bi nga xam ne moo aju ci lépp lu aju ci wàllu santé mi ngi fi toog ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Thierno mi nga xam ne adjoint la ci wàllu googu waaye itam jiite commission culturelle yitte ji nag ni ma ko waxee jenn la muy joo xam ne daayira Muxaddamatul Xidma da ko yittewoo waaye jumaay Tuubaa ci boppam moo ko yittewoo ñu seq ko nag ak ay mbokki taalibe yoo xam ne ñu ngi euh, euh, yëngatoo fële ca bitim réew ñuy fédération euh, daayira itali yi nga xamante ni Serigne Moubarak loo moo ko jiite ci ndigalul suñu kilifa suñu Serigne ci liggéey bi suñu jëwriñ ci liggéey bi muy Serigne maam Mor Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Mortada di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool ba mu àggale yéen yi nga xam ne moom lay liggéeyal maamam rawatina ci lu aju ci wàllu diaspora bi yitte ji nag incha allah dana jox. kaddu gi sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno mi nga xamante ni mooy wax ci turu commission sociale bi nga xamante ni ak relation extérieure nga xam ne ñoom ñooy ñoo yore fànn googu dana leeral yitte ji bu noppee nag ñu jox euh, sëriñ Mor Touré mi nga xamante ni moo fi teewal euh, Serigne Moubarak Lo mi nga xam ne moo jiite fédération boobu te ànd ak ay mbokki taalibe bokk na ca Serigne euh, Jili Bousso moom itam mi ngi fi teew. waa sëriñ Abdou Fall mi ngi fi teew sëriñ Abdou Diop mi ngi fi teew teewaaleel fi nag mbooleem fédération daayira Italie bi nga xamante ni ñooy yëngatu foofa kon dañuy jël kàddu gi rek jox ko sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno bu noppee ñu jox sëriñ Mor Touré mu wax ci turu fédération bi bu noppee nag ñu jox sëriñ Afiye Bousso Muxtaar mi nga xam ne mooy jiite euh, daayira Muxaddamatul Xidma mu tëjal ñu kàddu gi incha allahu taala bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ndokkeel jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sun borom mu yàggal ko fi te wéral ko di leen nuyoo fii ci jumaa jumaayu Touba ni ko Serigne Ablaye Diop waxee su ngeen gisee jataay bii nga xam ne ñu ngi ci jumaa ji te kilifay daayira Moukhaddamatoul Khidma toog la yitte ji jenn lay doon mooy yitte yu aju ci liggéeyub Serigne Touba bii nga xam ne eh, moom la ñu liggéeyal Serigne Touba fii ci jumaa ji saa su nekk. te di ko def ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, ci kilifteefug Sëriñ bu Bousso mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak ñi nga xam ne jëwriñ yi nga xam ne lim na leen léegi waaye su ngeen gisee jotaay bi it xar kanam yi fi teew di sunu bokki taalibe yi nga xam ne ñoo féete fële ca Italie ñoom it di fa liggéeyal Sëriñ Touba te ñu bokk liggéey bi muy benn xam ngeen ne daaira Muxaddamatul Xidma fii mu féete di jumaay Touba ak penc mi Eh, sëñ Ablaye wax na ko léegi day mbiri taalibe yëpp di mburu di mbiri jullit yëpp ngir ñor goo xam ne ñoroon na ko sëriñ bi ak toll fu mu toll foo xam ne toll na fa taalibe yi ci seen wàllu xol ak ci seen wàllu yitte tey mu doon loo xam ne saa su nekk eh, war na ñuy bàyyi xel li fi war eh, ñu di ko def loolu nag tax na ci taxawaayu Muxaddamatul Xidma ci li muy def lépp ci fànna yi ak sàmm warma ji ak lu ci aju ak taxawu jullit yi ba képp ku fi ñëw rek li nga bëgg nga mën koo am mën a def sag jaamu ba mu war loolu mooy tax léeg-léeg ñu am yitte ju mag joo xam ne eh, danañ koy jàmbat sunuy bokk taalibe yitte ji nag bi nga xamee ne jàmbat nañ ko sunu bokk taalibe yi nekk Italie muy fédération bi ñu jiital ci nag Serigne Faldilu Mbakke imam moom mi nga xam ne mooy imaam Serigne Touba fee ca Pontevico te Cheikh Mouhamadul Mourtada sampoon ko fa fan yii rek la fi jógee na waroon naa teewe jataay bi waaye bi mu ko yëgee moom it eh, amu ci sago ngir bëgg rek. yitte ji tab bi ci waa itali bañ dégg ko ngir mu mën a saafaraw euh, kon ñu ngi koy nuyu bu baax moomit di ko ndokkeel waaye di nuyu bu baax it Serigne Mokhtar Kandji mi nga xam ne moom moo jiite jamhiyat taawun ala taahati wa rasul ci Brescia ak li ko wër euh, moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu Serigne Cheikhouna Mbacké Rimini nga xam ne euh, lépp loo xam ne moo aju ci Romagna mark te sëñ Abdou Fall mi ngi nii teew ak jëwrin sëriñ Dame mi nga xam ne moo jiite liggéey bi foofu ci Rimini ak li ko wër waaye di nuyu tamit sëriñ Modou mi nga xam ne mooy jawrini Toscana Touba Toscana waaye di nuyu tamit sëriñ Pape Diouf mi nga xam ne moo nekk Veneto fédération Veneto sëriñ Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo nekk Milan ak li ko wër waaye di nuyu bu baax tamit euh, sëriñ Dame Seck mi nga xam ne moo nekk Sicile muy fédération Sicile ak li ko wër euh, di nuyu bu baax tamit euh, sëriñ Aboka Kasarta ak li ko wër di nuyu tamit sëriñ Xaadim Touré mi nekk Singoña Euh, moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit sëriñ Baye Mokhtar Gueye mi nekk Rome ak sëriñ Mor Touré. Euh, ci biir jataay bi nag bu ngeen gisee tamit jataay bi ñu fi teew sëñ Ablaye lim na leen léegi ñoomit it ñu ay jëwrin teewal fi waa Italie gépp mën nañ cee ràññee sëriñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne kenn ku nekk xam na ne nekkoon na foofu ci Touba Sicile ci Palermo. Euh, ba léegi muy ànd ak ñoom liggéey bi di fa def liggéey bu rëy rëy ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu sëriñ Mor di nuyu sëriñ Euh, Abdou Fall di nuyu tamit sëriñ Abdou Diop euh, di leen ndokkeel bu baax su ko defee nag niñ ko waxee loolu lépp nag ci kilifteefu Cheikh Mouhamadul Mourtada la la euh, Cheikh Mamour Mbacke mu Cheikh Mouhamadul Mourtada ndax bu fekkee ne Moukhaddamatoul Khidma itali xam nañ ci dara ba man caa jëf ba tax ñu ne ñu xam seen taxawaay ba mën la am yitte ji toll nii ngir ngir ngir ngir wax leen ko wax dëgg yàlla ci taxawaayam la ndax ci coobarey boppam moo sàkk woon ci Moukhaddamatoul Khidma ñu jox ko ndaw ngir ñu ànd ak moom wër Italie leeral liggéeyu Moukhaddamatoul Khidma ba tax lañ fay jëf saa su nekk am nay jëf yu fa bàyyi ko yu bari ñëw ci jumaa ji waaye lañ fay jëf wax dëgg yàlla lépp ci taxawaayam la kon ñi ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax a baax di ko sant di ko ndokkeel ndax lépp loo xam ne moom la ñu def foofa ci kilifteefam la yitte ji nag mooy mooy mooy lan mooy fii ci jumaa ji xam ngeen ne sëriñ bi eh, woote yi fii am yëpp rawat jëlale na ajjuma yi wala waaye màggal yi wala eh, gàmmu wala bisi xasida yi yi nga xam ne ñi ngi koy def ci jumaa ji dafay laaj baas bu rëyee rëy boo xam ne dafay méngoo ak jamono te baas yooyu nag doon loo xam ne Europe la gën a am euh, muy muy jar tamit lu xaw a bëri te loolu xam nañ ne du dara ci taalibe yi buñ ko déggee. su ko defee ne xam ngeen ne baas boo xam ne cinquante sur vingt lay doon dafa mel ne benn côté rek laa wax te côté yëpp dañ fay soxla baas yi toll doon kon lu mu néew néew juróomi baas yu mel noonu moom jumaa ji war na ko am ngir bu événement amee euh, nit ñi fet gu nekk ñu am fuñ toog boo xam ne fa mën a def lañ bëgg. loolu moo tax nag bâche yi yi nga xam ne ñu ngi ko fiy def muy doon ay cinquante sur vingt ci ci saa su nekk di ko luyee euh, xaalis bu bëri te suñuy bokk taalibee ak ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi rek di ko def ñu jàpp ne nag jumaa ji war na am baasu boppam bu méngoog jamono boo xam ne dañ koy am mu nekk fii boo xam ne dañ koy gis ci réewi tubaab yi ñu jënd ko saa su événement yooyu ñëwee bokk taalibe yi mën a am fuñ kerloo muy moo xam gàmmu moo xam màggal moo xam bésu xasida yi ñu fiy def loolu nag mooy yitte ji nga xam ne biñ ko amee suñu xel dajut fenn fudut waa itali ngir yàgg xam seen seen jàmbaare ak seen pastéef ak seen bëgg lu baax loolu daal kon képp koo xam ne daal yaa ngi Italie euh, di taalibe te bëgg lu baax wala ngay mbokkum taalibe ñu ngi la ci soññ bu baax a baax a baax ngir ñu xam ne loolu bëgg-bëgg jumaa ji la bëgg-bëgg jumaa ji la te jumaa ji moom ni ko sëñ waxee léegi du leen kenn lépp ñëpp la ñi nga xam ne nag ñooñu daa ñàkk yàgg jàppale ci liggéey bi di fa di fa jàppale Muxaddamatul Xidma ci koor ak ak màggal muy sëriñ Daaru Touré euh, nga xam ne mi ngi foofu ci Milan sëñ Ibrahima Ndiaye xasida ak yenn jëwrin yi sëñ Ibrahima si euh, sëy ak sëñ Saaliwu Fall euh, ni ki noonu tamit sëriñ Saaliwu sëñ Saaliwu Fall ak sëñ Ibrahima sëy ak sëñ Daaru Touré ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññ ngir ñu jàpp ci liggéey bi waaye di soññ sëñ Assane Diop mi nga xam ne moom mooy nekkal daayira Muxaddamatul Xidma ci Europe di ne liggéey bi foofu ndax bu fekkee ne tamit sàkku nañ lii ci waa Italie ñi nga xam ne xam nañ liggéey bi daa ci yàgg a nekk suñ ko déggee it dañ leen ciy soññaale ngir ñoomit it luñ ci man ñu ñu ñu jàpp ci loolu daal ci leeral mooy li nga xam ne moom lañ moom lañ bëggoon moom lañ bëggoon ngir ñu ñu ñu àgg ci bokki taalibe yi ñu mën koo matale loolu daal mooy yitte ji yi nga xam ne eh, jumaa ji soxla na ko te ñu koy sàkku ci waa Italie xam naa ñu ngi tënk suñ kàddu foofu di soññi suñu bokki jigéen ñi rawatina daayira maam jaara yi ndax kenn ku nekk xam na ne eh, kenn mosu leen a man ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy wooteel sëriñ bi fu ñu nekk ci Europe loolu moom ku fay dem ku nekk xam ko kon ñu ngi leen di soñ bu baax eh, di leen di leen séntu ci liggéey bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmaani rahim ginnaaw buñ sante yàlla julli ci Seydina Muhammad ñu ngi dellu di yeesal sunu siyaar ak sunu jébbluwaat di ko teg ci loxob sëriñ Afiya mii mu tegal na ko ci loxob Seexul Xadim ginnaaw bu loolu jàllee ñu ngi koy siyaare bu baax di siyaare sëñ Abdou Lahat ñoom ñuy toog ak sëñ Jili so yàlla daa dogal ndaje mii li ko waral mooy yitte joo xam ni fii Seexul Xadim ne moo ko yittewoo muy jumaay Touba ji te it muy loo xam ni bépp liggéey bu ñuy liggéey ci Touba dañ ko cee sof waaye bii rek la sëriñ bi liggéeylu woon ci boppam kon nag lépp lu fi jëm rek lu faratawu la man nag dama fee teew ci ndigalul sëriñ Moubarak Lo mi nga xay moo jiite confédération bi ba ci Italie ak sëriñ Fallou Mbacke imam ak sëriñ naa Mbacke ak sëriñ Mara jen ak sëriñ Khadim Touré ak sëriñ Cheikhouna ca Nuwaara ak sëñ Bassirou Dia ñooñu dañuy ay jëwriñ yoo xam ni dañoo dex diggante jëwriñ yi ak sëriñ bi topp Mubaarak topp ci seen ginnaaw kon ci seen ndigal fi ñëw ndigal lu fi bàyyi ko damay dem teg ko ci seen loxo ni leen lii moo bàyyi ko ca barab ba waaye nag ñoo ngi ñaan sëñ Muntaqa mi yàlla na ko fi yàlla bàyyi lool ba yàgg lool te wér sëñ Maam Mor Murtalaay liggéey bi ko bàyyam bataleel yàlla na ko woyof tooy ci kawam waaye ginnaaw bu loolu jàllee sama kàddu bopp maa ngi xamal taalibe yi ne leen liggéey bii de liggéey bu far la ndax jumaay Tuubaa ji baas yi soxla mu war koo wër lu mat juróom ba juróom benn baas te baas bi ci ne seer lool na ngeen xam ne benn fédération moomu ko Italie gépp ko bokk bépp murit bu ne boo mën a doon war ngaa génn saw ñaq def ko ci ñu ñëw def ko fii ci jumaa jumaay sëñ Tuubaa ji nga xay fi sëñ Tuubaa la ne lu dalum xel la te suñuy maam kat ñoo defaroon jumaa ji ñoo doon béy di indi sëñ Modou Moustapha muy def ci jumaa ji kon nag bu ñu demee ba nëgë ni ñu duñ ci sas dong baas boo xay day tax nit ñi duñ tawte wala naaj bi du leen gaañ loola moom war nañ cee sawate loolu am war nañ ko cee def kon nag góorgóorlu bu baax ba lu waay man na ci def ba loola sotti bu ko kon nag foofu rek la ñu yemale kàddu gi li ci des sëñ Moubarak loo ko moom wasalaamaaleykum. aùzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi suñ kàddu nag ñu ngi koy sof ci kàddu sëriñ Mor Touré jëwriñ yi nga xam ne moo fi teewal sëriñ Moubarak Lo ak mbooleem jëwriñ yi ngeen dégg mu tudd yëpp ci Italie ci liggéey bi nga xam ne yàlla moo ñu ko wërsëgale wërsëg wi nag mooy bëgg-bëgg sëriñ Touba ku ne xam ne ne fépp fu mos a daagu daagu woon Touba moo ko gënaloon ku ne xam ne na lépp lu mu yéene woon doomu aadama yi waa Touba la ko gënoon a yéene kon nag Toubaam googu fu taalibe bi nekk ci àddina si war ngay fàttaliku Touba ay bëgg-bëgg Touba dëkk bi itam li ko sëñ Touba di bëgg-bëgg jumaam jii la gën a bëgg kon bépp xew boo xam ne ñu ngi koy def ci jumaay Touba la nga xam ne mooy yokk sutura sa ak taar ba taalibe yi ñoo ko warlul sëriñ Touba ndax sëriñ Touba bi muy santaane jumaa jii kat wax na ne am na ay mbindeef yu ko suñ borom boole loon yoo xam ne naroon nañ ko ko defal or mu ne li ngeen ci am ci tiyaaba ak ay ngëneel taalibe yi ma suñu borom booleel ñoom laa ko gën a yéene loolee nag wuute wut ak liggéey bi ñu sant muy def ay baas yoo xam ne màggalu Touba gàmm ak bépp bis boo xam ne mel na noonu ñu andi ko defal ko sëriñ Touba teelal ko ganam gi suturaal leen suturaal leen ko ndax xam ngeen ne sëriñ Touba kat bi muy wax naan hablil ida mutama tuhib wa tartali fii maskani Touba lati lakka tansilu suñ borom maa ngi lay ñaan sama dëkk bii di Touba nag ma fi defal ak saxwaay ak ak xéwal la mujj rek mooy li ëpp solo mooy daf na ko làkkatan si lu mooy sa wàccuwaay kon ginnaaw fii mooy wàccuwaay suñu borom ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe Sëriñ Tuubaa war nañ cee góorgóorlu kon taalibe yi nekk Italie ak bépp taalibe moo xam ne mos ngaa nekk Italie te léegi nekk fa sax fa nga nekk ndigal li si na ci yow foo xam ne boo fa joxee addiye ju jëm ci baas yooyu dana fa dana egsi na nga ko fa jaarale bu lépp sottee lépp jaar si loxo loxoy suñu mubaarak loo dana egsi ci liggéey bi nañ ci góor góorlu bu yàggutoo mbaay suñ nawle yi nga xam ne ñoo nekk Espagne ku ne gis na ne liggéey bi ñu liggéeyal Serigne Touba ñun ñëpp ñu am ci ak mbégte sëñ wóor nañ suñ Touba am na ci mbégte kon nag nañ leen feelu ci liggéey booba ci jëf fi loo xam ne ku duggati Touba sa xel dana nekk ci liggéey waa Italie kon ñu ngi leen ci soññ bu baax fu waay nekk ci gox boo mën a nekk ci itaali nag fenn soriwut waaye fu waay nekk da xam ne ndigal li agsi na fi kon nag yàlla nañ yàlla defal ñu jàmm ku ci def ak ku ci wax ak ku ci jëf ci yàlla defal mu yëg sukaay maqaama ak dollikaayu wërsëg ak sàmm la ba nga ñibbisiwaat sa njaboot ak xéewal goo bëgg andi nga xéewal ko andi ko fii ci Touba ci barke Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi yi fi kii fii ma dandal maa ngi leen di nuyu baax te leen ziare yi di ziare bi Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne lépp lu waay dingu ci barab bii ci ndigal mu koy defee mu ngi koy defal ci ndigal mu koy defee kon ñu leen di nuyu di leen ziare ci turam ni ko bokk waxee léegi tam di ziare sëñ Mamour Mbacké mu Cheikh Moutala mi nga xam ne yëngu bi ba demee ba foofa ngir yàlla ak taxawaayam la kon moo tam ñu ngi ko ci saar di ko sant a baax wax ne fii barab boobu muy Italie ak man wax Europe gépp sax wala wala fu hôpital bi nekk ñu ngi rafetlu seen taxawaay bu baax ci jëpp itti joo xam ne mas naa bàyyi ci barab bi tabbi seen nopp kon def nga ci ittee def sa kam kàttan ba lañ ñu ko sakko woon nu amee ko nu kaween njort kon ba tey liggéey bi itam ñu ngi yaakaar ne noonu rek lay lay demee ndax seen Pastef xam nañ ko day jëm kanam tur jëm kanam bu mukk kon li des rek maanaam ñaan suñu borom kàttanal ñëpp ba ko nekk ci yéene nga ma ko defee na nga ko bëggee ñu kattan bi ne li xëyri ni'ma tusi muy dina ana el xidma barka borom Tuubaa a wa rahmatullah waa kay kon mbokk yi yitte jaa ngi noonu dégg ngeen ne ko suñu Abdou Lahad Bousso Thierno leerale waaye itam dégg ngeen ni Serigne Mor Touré yëkkatee kàddoom jëmale ko ci mboolem confédération bi nga xam ne ñoo nekk itali ak kaddu soññe yi nga xam ne soññ na leen ko waaye ñuy rafetlu bu baax kaddu yi nga xam ne moom la Serigne Jili Bousso yëkkati léegi muy kaddu soññe yoo xam ne soññ na sax mboolem taalibi boo xam ne yaa ngi ci yoon wi rek waxuma la mu nekk Italie wala nekk feneen ci diaspora bi waaye ñun ñii fi toog sax wax dëgg yàlla kaddu yi soññaan nañu bu baax a baax a baax ak kaddu yi ñaan ak eh, ngërëm yi nga xam ne moom la ko Serigne Afia Bousso tëjee kon yitte jaa noonu yitte ji ba bi yitte ji demee ci xel yi ñi nekk Italie rek la saafaroo ba noppi ndax seen pëstéef ak seen yàgg jëf ci yoon wi moo tax jàpp nañ ne euh, dana euh, saafarawu ndax bi xel yi demee ci ñoom ci ne yaakaar nañ ne ñoom ñoo ko war a saafara rek booba la saafaroo ba noppi kon yitte jaa ngi noonu na ci ñëpp jàpp ak fu waay man a nekk rek ni ko sëriñ Jili bu sa waxee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam